asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi ak internetu Lit TV yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag su ngeen gisee jataay bi li ko waral mooy dafa am koo xam ne nii yaakaar naa ne gis ngeen ko léegi muy dugg si bu ngeen ko gisee mooy baaba jaw bu gël Tapée baaba jaw bu Médina Baba jaw tamit bu Thiam Production tey nag ah mu ne woon daal xam nga bëgg na wax ak sénégalais yi bëgg na tamit wax ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy monde làmb parce que olof ak wax ku yokkul yaa wàññi te ku ne xam na ne daaw saison bi bi muy tëj biñ ne suba la maanaam bi ñuy corona bi am maanaam ñuy jël décret président di ko def di tëj làmb ji moom moo waroon tëgg soq ak gàmmu géey te defe naa ne tamit fi mu nekk nii nañ làmb ji ubbi na mois de mars defe naa le premier mars ci la war a ubbi ñu war a bëre moo tax nag tey ñu ñëw tamit seet si ko ñuy nuyu staffam bi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii ku mel ni sama soppe bi am di Moustapha ah maa ngi koy bëggee di nuyu Aba ak ki nga xam ne moom mooy papa Ndaw waaw ah, du papa la ah, ah, ak Issa <laughs> waaw le le parisien ak tamit di nuy waa métropole restaurant bi nga xam ne nii xam naa ne fii ci Gueule Tapée moom lépp loo bëgg ci lu neex ak lu set lu sel boo ñëwee métropole fii ci Gueule Tapée moom di nga ko fi am moom macha allah muy restaurant bu zik bu tege ci aw yoon euh, aba am di wala ma ne sax baaba bu ma ci wax rek baax na <laughs> parce que tur yi moom benn tur la gars ah. maa ngi lay nuyu waaw maa lay fay xam nga du nuyu ñoom Lamine du nuyu sama gars yi ma nekkal mel ni Papa Ndaw am di Aba Isaaxa Jaay xam nga di nuyu sama staff yëpp di nuyu tamit sama gaa yi lu may liggéeyandoo xam nga ñoom Youssou Thiam ñoom Iba ñoom Ceex ñoom Papa ñoom Daawda xama nga lim ñëpp xam nga di ñëpp daal du nuyu tamit ba moteur kii ñu mu sax moteur pôle bi xam nga madame Fall doon sonn si baax doon sonn si tamit nangoo liggéey am nga doon jàmbaar ay lekk lu baax lay lay jaay xam nga nuyu àdduna bi ñëpp nag waaw madame Fall ñu koy nuyuwaat borom métropole waaye tamit may nuyu tey ki ma takkal lunette sama seex bi Lamine moo ma jëndal lunette yi démb comme yi muy takk teg teg moom la ma jëndal jox ma ko macha allah maa ngi koy béggee Lamine Seck bu Lutte TV borom looro loo wax ci loolu. non Lamine moom boom baax la et puis yéen ñaan ñëpp boom baax la dañuy ñaan yàlla ak seen ànd bi xam nga cat ban si dugg quoi xam nga et puis gars yi itam bàyyi leen ak seen sago quoi ok. kon yàlla nañu yàlla musal ci cat mais Aba wala boog Baba. <laughs> benn lépp benn la defe naa ne ñu ngi ci mois de février tey la vingt 24 weer wi presque dee na yaa ngi dégg heure bi daaw presque la làmb tëjoon muy mat un an ferme li ko waraloon mooy coronavirus yow nga nekk promoteur boo xam ne bi Assane Ndiaye tëggee samedi yow yaa waroon tëgg bët set dimanche muy soq ak gàmmu gi ak combat yi ca aju woon ñoom Maam Mor a nga ca woon ñoom euh, Mbañi Kayre ñoom euh, Jacob Balde yàqu-yàqu boobu bi mu amee ba tey fi ñu toll ni mu mat at noo ko dundee waaw sant yàlla bu wéer ndax ñun ay jaam lan te suñu yàlla tegee natu xam nga doon ay jullit nga dañ koy nangu xam nga ba waaye comme ba suma yàgg di wax rek moom sama lépp dama teg si loxo yàlla waaw métti na trop mais xam nga dañuy sant bu wéer ci diggante bi suma ma am na lu fi am ci entre promoteurs yi toog ngeen fii ànd ah euh, muñ yëkkati sax su ma jumul seen alal yóbbu ko waa ministère de la santé participer ci xeex bi nga xam ne moom lañuy xeex corona bi en tant que ay euh, promoteur mais itam yaakaar naa bi ngeen ci jógee boobu ba tey lan la état teg ci seen loxo loo xam ne lii leer na leen ne lii war ngeen te mën sukkandiku pour ref pour jógaat defaat li ngeen daan def. waaw bu xew maam en tout bu mas bi ñëwee promoteur yëpp benn lañ def ku nekk jël sa alal boo am def ko si dimbali ko ministre bi. état def na benn geste benn paax mooy jënd ku nekk deux millions jox la. deux xam loolu geste noble la mais boobu ba léegi déggaatuñu daaw waaw. deux millions est-ce que doy na ci yéen ñëpp wala qu'est-ce qu'il y a. moom laa loo xam dafa am geste noble. geste moo noble waaw geste boobu noble la mais ñun lu ñu dépensé ëpp na loolu. Mhm. a xam nga tey nit ko defal lu baax su nekk as gox dëgg sant ko moo tax ma ne geste noble la quoi. yow sa biit sa ci soq ak gàmmu gi bi la euh, ñaata la woon. non bëri na. ñaata million. non na moom. Mm-hmm. mais kon 2 millions lañ la jox kon daal satisfaire wu ca dara à part geste noble bi. waaw non mais geste noble la loolu lañ mën tënk mais ñoom war nañ gën a mën jàppale promoteur yi ndax xam nga ay ndaw lan jël suñu àll def ko si bu natt bu ñëwee nangu ko. kon lu daaw ba daaw tey ñoom war nañu mën pousser yokkuñu fit mais am loo xam ne tey suñ koy gis si ñoom sa xel day xaw a tey. comme lu mel na waaw comme li jot a xew ni ma dégg ne làmb ibbi na te ñu ngi doon ay ndaw woon tëgg dimanche ndox dal suñ kaw ni nangu ko kon ñoom tey woo ñu tëb tëb ne làmb ibbi na si noonu la kon yow ni nga dégg ne làmb ubbi na yow loolu nga rafetluwul. non non non ànduma si quoi. noo bëggoon mu demee. au moins ñu woo xamoon ni làmb bis temps lay ibbeeku ndax man dama ko dégg si ay junior man loolu du respect wax ndax dañ jël suñu alal def ko si toog du leen déglu kon tey saisonnière ñoom su ñu doon béy bi làmb tey nekk maam nekkoon promoteur mais ñoom duñ fa toog kon promoteur ñoo tax ñu toog fa promoteur ñoo tax ñuy fayeeku kon lu daa ba daa tey su ñu doon béy ibil làmb wala ñu woo promoteur bu nekk ñu woo la. wax la dañ bëgg làmb ibbeeku bis temps ndax loolu mooy respect est-ce que noonu la daan doxee wala dañ daan woote. man suma gis-gis laay wax ak su ak lu ma gëm man suma gis-gis ak lu ma gëm ndax tey bu ndogal bu ñëwee yaa may dégg ñoom ñoom dañ ma woo expliqué ma man nangu ànd ak ñoom kon tey suñ ñëwee bay jàppaat bis au moins woon nañ ma woo woo woo woo tam ñeneen ñi ndax loolu mooy respect Babs. man lu ma gëm laay wax lu ma gëm du ma ko wax ndax tey suma alal man maa ko ñeme suma bopp amul kenn ku ma si jàppale léegi tey soo comme lool nga wax dañ leen waroon woo wax leen léegi defuñu ko ne nañ saison bi ubbi na pour le premier mars lay commencé incha allah rabi est-ce que tey Thiam production pare na pour tëgg ay làmbam ci situation bi nga xam ne moom la ñu wax ne ci la ñuy tëggee làmb ji muy huis clos parce que loolu déjà lu ñu tënk la pare. waaw avant boobu sax damay nuyu suñu papa Gasson du ko ñaanal yàlla na réussite totale ndax loolu mooy yëfu nit quoi mais man caam xalaatuma sax tëgg si ay kilo kilos xalaatuma ko ndax suma ala dama ko ñefe. kon soq ak gàmmu gi xaar ci huit kilos. non xalaatuma ko si kaw état bi jàppale ñu suba mun naa def huit kilos mais état état ki ñu état ma ko xalaatuma ko. man ñu promoteur yi wax démb di seet seetaan naa leen ñu ñu wax man man loolu laa wax ok. maanaam ñi taxaw ne ñoom du ñu tëgg lu dul ne état daf leen a jàppale wala ay solution am yow ci loolu nga ànd yow. parce que loolu mooy dëgg ñu ñëpp benn lan man ñu ñoom dem lu ñu wax man loolu ànd naa si tey ndax suñu xaalis dañ ko ñafe mënoon nañ ko jël dugal ko feneen wala mënoon nañ ko jël def si leneen mais dañ ko jëlaat defal ko si biir dëkk bi. pour jàppale jeunesse su dëkk bi kon ñun ñëpp état bi dafa wax xam ne waa làmb ay njabootam lan man loolu laa gëm Babs. mais pourtant am na ñu ne dañuy tëgg parce que à part gas gas moom waxatuñ ko ndax moom leer na mais ku mel ni euh, euh, euh, kële nu mu tuddati Habib Lecran sëñ Modou ñaa gis nañ tey jàpp na date pour le 28 mars nar a ubbi sax làmb ji ci diggante Ronaldo ak Diegane loolu ñooñu tam loo loo leen di wax. waaw mais yal na yàlla jàppale yal nañu réussir ñoom ñëpp. mais man Thiam xalaatuma loolu waaw man dama leen ñaanal rek ñu réussir man sama sama laaf yaakamtuwuma ko bis bi ñu ajee làmb bi temps normal man ma ñëkk a tëgg mais comme ay huit kilos nii xalaatuma ko foog état jàpp jàppale ñu jàppale promoteur yëpp xam ñu tëgg ko mais sans loolu bas man xalaatuma loolu biñ ne defar budget pour promoteur yi jox ko ñu xool lu ñu leen di jàppale yow defaroon nga budget yow jox état waaw ah, budget boobu defar naa ko jox suñu président Dieye maa ngi koy nuyu sax di nuyu Abdou Lahad xam nga ñoom ñoom Gibson ñoom Bamba waaw. loolu après fu mu mujjee. mais ba tey déggaatuma si lenn waaw. document yi daal ba ngeen ko bindee joxe ko ngeen ci gëj dégg dara. waaw di boobu lay déggaatuma si lenn. loxo ministre la teg woon wala loxo président de la république wala loxo kan wala loxo CNC. waaw foofu man bu ñu man Dieye laa ko jox. saf la Abdoulaye laa jox mu jox ko Dieye ah. mais di si lenn. mais ñu seet leen tamit yow si biir euh, lool bi ma si biir corona bi après gis nañ defe naa ci am production taxawal na fi ay combat mën nañ ci lim caatu yaraax zal bawol ak ban combat waat double moteur coins double moteur coins voilà tey Babs ma xamal la maam ñu siy wax wa tey ñu si kii tey soo timi soo soo limee trois promoteur xam nga man dama siy tegu ndax ay combat jànk laa tëgg te bon si gàttal lépp lép lépp man damay bëgg ni état soo amee ay ndaw nekk si dëkkam nangoo liggéey pour man état da leen war teg loxo jàppale leen ndax tey ëllëg ñu ñooy màgg teel réew mi kon lépp ak dafa war rafet quoi. yow daal doxalin bi nga gis nii daal janga jàpp ne daal tegewut ci yoon daal rafetlu loo ko daal. non su ma waxee lool dañu leneen la dama ne état si boppam dañu war a jàppale yi def huit kilos gars doxal. mais tey sans sans état jàppale leen mais kilo clos bas loolu day metti lool. yow depuis boobu ba tey comme ni mu demee nii huis clos est-ce que Baba mu ngi jéem a def benn démarche pour sponsor pour nangam loo xam ne xëy na mën na ñëw soutenir ko ci li mu jëm. yaa wax dëgg yàlla non non commencé wuñ ko quoi. combat yi nga tëgg double moteur Quench. ah <laughs> soq gàmmu géey zaal bawal caatu yarax Jacob Baldé Mbagnick Kaïré Mamor ak xale bu dëkk fa nga xam ne moom mooy fële pol bu daaru yooyu combat yow nga yaakaar combat yu neexee noonu doo ko war na am sponsor. waaw instant ñoo ñu mais instant moom daw sotteegul waaw comme lu ma la ñun ay ndaw lañ bëgg nañ daal gars yi jàppale ñu ndax am nañ gëm-gëm bi am nañ fit bi nangu nañ liggéey tamit. tey daal baaba kon tey yow fi mu nekk nii est-ce que am nga yaakaar ci làmb ji la res fi fi ñu jëm ni ci kanam. si bañ côté noonu. maanaam ci côté yaakaaru tey dem ba làmb ji rafet na normal ngeen di tëgg normal est-ce que am ci yaakaar fi mu nekk. si am naa ngëm-ngëm boobu waaw ngëm-ngëm am naa ko moo tax yaakamtuma sama lay dama lay wax mbëri ñu may dégg su ma état bi jàppale mën nañ def huit kilos. suñu état bi jàppaliwu dañuy xaar ba làmb nekkaat suñu temps normal ni suñu bis kon daal say mbër moom na leen leer muy Double Moteur ak Quench ak ñoom ñëpp ku ci ne daal na ko leer na tey su état bi ñëwul appuyer promoteur yi yow moom say mbër nañuy xaar non muy Double du Quench du euh, soq gàmmu gay ñoom mañin ñoom jagab su ma état bi jàppalewul du tëgg làmb huit kilo xalaatuma ko ndax su ma live comme lu ma la commencement bi dama ko ñafe amuma xaalis bi ñu maa ngi dégg sax xama Fallou Fallou Fallou Ndiaye comme ni mu koy waxee amu xaalis bi ñuy fooyee non si dëgg la soo ko ñëfewul doo ko xam amuma xaalis bi mooy fooyee Babs waaw suñu état bi jaabee ñu tëgg suñu état duñu tëgg Babs amul leneen maa ngi sëñ am na solo mais tey tamit am na ñoo xam ne ñu ngi laajte ginnaaw caam lu ci ne parce que boo ne maa amoo sponsor ak combat yi ngay taxawal sénégalais yu bëri dañuy laaj surtout amateuru làmb yi lan moo ne ci ginnaaw caam production. waaw xam nga waxoon naa la ko yàlla la yàlla lañ gëm moom lañu yaakaar te wóolu ko à part ça mooy ñu nga gis si ginnaaw man am di Papa Ndaw Aba xam nga ñoom Youssou Thiam ñoom xam sama gars yi à ñoom amul amul keneen. mais doo tëdd ba la yàgg nga am tiit wala inquiétude yaa xalaat que millions yi ngay investir est-ce que yaa ngi ciy gisaat sa bopp. waaw mais xalaat pour lan. non gis àdduna lépp kàtt la soo amul ngëm-ngëm bàyyi ko man sama life lépp dama koy teg man gëj perte yàlla xam na lool. ba business bu may def sax loolu laay jiite chaque jour mais day exemple euh, Babacar dugg na si perte na man su si dugg damay perte mais ana yàlla waaw man sama life lépp ngëm la Babs yàlla xam na ko. léegi nag damay jeexal ak yow foofu mais damay dugg ak yow ci loo xam ne nii intéressé na Sénégal yëpp tamit muy climat politique bi actuellement ni mu doxee ci réew mi xeex bi dóorante bi tojante bi taalante bi jàppante yóbbonte kaso bi ah li ko gën a yokk bokk na ci mbirum Ousmane Sonko yow nga dëkk fii Gueule Tapée defe naa gegenoo université bi te fii des fois mu am ay jafe-jafe yow en tant que citoyen sénégalais mbir moomu loo ciy wax ak noo ko gisee. waaw si ni ku nekk am na vie privée. mais étudiants yi nga gegenool tamit loo leen di wax sa frère yooyu sa rakk yooyu sa ay kii say mbokk ñoom ñu ngi fii te des fois tamit ñuy ñaxtu di def ay affaire waaw sa que ñoom li mu leen conseil mooy buñ nangu kenn du leen manipuler. muy état bi muy keneen nañ gëm seen bopp nangoo jàng yàlla baax na mais buñ nangu kenn du leen manipuler quoi xam nga man daal xam nga Sonko daal xam nga nañ ko bàyyi mu nekk si jàmmam quoi waaw ku président ëllëg yàlla doo nga xam kon daal yow su ma la déggee daal na ñëpp nekk ci jàmm daal jàmm daal la baaba yi ñaan ci réew mi. mais jàmm mooy lépp Babs man dama xeexul kenn dama xulul kenn. man sama xeex mooy sama liggéey. kon su ko maam ni ku nekk tey euh, soo amee soo si kii nu yëngu jàpp si. mais yenn ay politique nii da lay taadal rek bas. da lay relation Baba ak waa Medina Gueule waaw man maintenant laa juddoo foofu laa màggee foofu laa defee sama lépp maintenant ñëpp sumay waay lan waaw ñëpp sumay lan. te et puis lu mu am dem foofu laa koy dugalaat. loolu mi dina am ak Serigne Touba Babs ñu may liggéeyandoo si maintenant mën naa ay deux cent personnes di dem yàlla xam na ko tey xam ñoo xam su ma leen joxe di di leen dimbal peese ay trente personnes yàlla xam na lool man lu ma am maintenant laa ko bokkoon. ak Serigne Touba leer na ñi. mala moo ngi fi xam nga bu baax xam nga jàmbaar la xale la te am na ngëm-ngëm quoi waaw bu ñuy àndee ba léegi macha allah et puis bac plus may yàlla xam na ko dama koy ñaanal jàmm moom yàlla may tànk waaw allahumma amin looy tàggoo ñu lay suivre ci Equivox ak Lutte TV non man say xool ñoom ñoom daal waaw ñoom kii nu sax ak Leewtoo xanaa ñoom ñett laay seetaan waaw yàlla xam na ko saa yi ma nekkee guddi tama ñoom laay seetaan dina ñaanal jàmm surtout maanaam Lamine xale la xam nga wax ñaanal jàmm yàlla dafa ko jàmm wax gars yi itam nañ ko bàyyi mu liggéey ak xelam xam waaw bu ñu ko manipuler quoi ndax moom liggéeyam lay def. tey day xool maam ni mission gën a doxee mu def ko mais yenn gars yi nag amuñu xel boobu pour ñoom Lamine benn genre ni la déedéet jantal la góor yàlla la ak Cheikh Xon nangoo job waaw kon mu bëgg gars yi may ko jàmm quoi Babs yow tamit dama lay sant di la gërëm ndax xam nga fu ma la woowee wuyu si ma waaw et puis sa góor may jox xalaat waaw waaw ñaan yàlla jàmm ñaan xaw ma ma. sonn <laughs> ah, kon kon gaa yi affaire baa ngi noonu ah ak ki nga xam ne nii moom mooy Baba Diaw mais nag nit ku ne am nga ñooy liggéeyal am dee ngi nii defe naa ne am di eh, eh, lu gàtt rek moom defe naa sa diggante ak moom wala seen diggante sax fi mu nekk nii mooy loolu quoi. salaamaaleykum Babacar maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu staffu Thiam production bi yëpp di jiital nuyoo bi Baba. xam nga gars yi maa ngi leen di nuyu di leen baaba defe naa ne liggéey bi ni mu taxawee nii rek loo ciy sànni. mooy li baaba wax rek li baaba wax moom fu mu toll nii luñ ci dolli amaana mooy loolu quoi wax na lépp waaw affaire bi moom mooy li mu wax rek na na état gersu bi xam nga xale bu ndaw bu jël say centaine de millions investir ko dugal ko say morom. dugalu ko ci ay pas dugalu ci kay kenn ci ay moroomam la ko dugal mooy mbër kon war nañ ko mën a jàppale gestu ko gëstu promoteur yëpp aussi tamit waaw ni ñu bëggee tëggee làmba ji ñun duñ duñ ko tëgg caaxaanuñu ko sax barki Seydina Mohamed amul accompagnant état duñ ko mës a tëgg billaahi wallaahi waaw ndax ñun ñooy ànd di liggéey te boobu léegi mooy li mu wax rek a ah, ay xale lañ ay jeunes lañ amuñu leen lu ñuy yàqamti ah way bës bu ñu nouvelle ordre ñu war ko tëgg ci temps normal ñu gérer ñu war a gérer waaw mais si le faut moom li baaba wax moom ñun loolu la ñuy def ah. waaw sëñ Babacar waa sëñ Babacar maa ngi lay siyaar di la siyaar di jox seen wàccuwaay di leen siyaar yi ñëpp di siyaar sama gaa yëpp su ma limee damay juum euh, li may wax daal bariwul benn kàddu la ñu ñëpp benn la ñu benn kàddu mooy am li baaba wax li am di wax lépp benn la euh, di ñaan yàlla rek euh, jàmm sax Sénégal xam nga yàlla doon ñu sutura yokk mën gi te boo xoolee dëkk bi jaxasoo na jaxasoo boo xam ne jamono ñu toll nii foog état teg loxo nit ñi pour mu dem parce que lépp taxaw na mais ku jël xaalisam bu bari def ci làmb pour Sénégal jëm kanam déjà yaa ngi wàññi chômage moom li mu wax ni sànq dëgg la du question que ne làmb ji kese la mais am na ñeneen ñoo xam ne mi ngi liggéey ak ñoom mi ngi wàññi chômage bu bari di dimbali ñu bari mais loolu lépp xaaru ci kenn xam nga loolu ñun ñu la siy waxal ñu liggéenti ko mu sotti waaw man daal aw ma daal lu mu ci wax lu bari ñoom li ñu waroon wax yi wax nañ ko waaw jërëjëf jërëjëf. Aba. Mabs ñu nga lay siyaar di la jox sa wàccuwaay xam nga di siyaar Lamine xam nga di leen bëggee quoi. waaw yow defe naa dégg nga li gars yi wax ah daal yéen bu état accompagné wul moom fasu ngeen ne génn seen xaalis di tëgg. dëgg la waaw mais Babacar yow boo xoolee loolu moom moom moo jaadu loolu moo jaadu quoi parce que nga nekk ndaw xam nga xoolal mu taxawal rek. yow xoolal combat yi mu taxawal rek kon kooku war na mun a am jàppale comprendre nga gouvernement bi nag xam nga nañ jàppale gars yi ñii seen morning mënoon nañ ko jël dem feneen wala ñu yokk wala ñu dem tukki xam nga de mënoon nañ ci def leneen yeneen liggéey mënoon na ci am mais xam nga ngay jàppale say moroomu jeune xam nga te mbër yi dañ sonn nañ jéem xool nu ñu defee huit kilos ñoom ñu teg ci loxo mbër yi bëree xam nga affaire yi metti na nag de te man mbër yi barki Serigne Touba Mbacke man mbari yi laa gën a yërëm parce que xam nga ay booy lañ am nañ doole xam nga toll nañ nu leen neex quoi na état bàyyi xel loolu tamit quoi waaw jaajëf Babs bëggee naa la. jaajëf ah. kon nag gars yi noonu la demee woon ah, ni ngeen ko xamee rek euh, Equivox la woon Lutte TV. Lamine Babacar Yàggamaar ak fii nga xam ne moom mooy métropole ci Gueule Tapée ak Baba Dia ak Thiam production yëpp di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi doon suivre di ñaanal jàmm Sénégal di ko ñaanal àddina bi di wax ne que rek corona bi yàlla na dem ba situation yëpp décanté wu ba ñëpp mën a ñëwaat revenir normal ñu mën a organiser lépp dox parce que tamit loolu la ñu bëgg rek parce que jàmm moom moo jik borom njaboot. te jàmm moo gën fii moo gën fa ñu jëm dégg naa suñ bàmba daan na ko wax yàlla na yàlla yokk leen taaf ñu si barkeem ah di wax ka rek yàlla na ñëpp ah, yàlla musal ci cat làmmeñ ak saytaane parce que ànd moom yàllaay tax mu mën a réussir bu ngeen ko defee ci ay caaxaan tamit yàgg-yàgg day yàqu mais heureusement ba yàlla ba mu defee nag dañoo jàppante te yàlla tax ma koy ñaanal yàlla gudd fan rek moo ko yàgg maar mële di leen ñaanal tamit yàlla na leen yàlla leen ko jaajëf sama gars yi